Le président Macky Sall n'a pas choisi. non mais le président c'est le président de tous les Sénégalais et bokkul ci élection locale yi malgré effort yi opposition bi di def ak waa Benno yi ñuy def pour dugal ko ci ñii di ko utiliser pour xeex ñii di ko utiliser pour sagu nee naa la li am ci commune yëpp ay projet gouvernement la ay amul kenn ku ma ciy mën a weddi amul ci benn maire bu mën a taxaw que muy opposition que muy Benno Bokk Yaakaar amul ci benn maire bu mën a taxaw n lii maa ko def. muy tali yi muy làmp yi muy ndox mi muy muy dakaar bii nii mbalit bi état bi moo koy fay éclairage public bi état bi moo koy fay. ñëw ci sa programme. Euh, tout à l'heure mais mais pour terminer point boobu. mooy que ni est-ce que euh, xam nga ni en même temps euh, cest à au moment où yaa ngi jël sa sa yoonu bopp ngir dem def sa battre campagne. Hmm. yaa ngi utal solution le président de la République c'est-à-dire ñu mel ni yow ñi nga xamante ni ñoom peut-être amuñu lu leen neex am na ñoo xamante ni ay frustration la la ñuy dund ci biir coalition bi. c'est sûr que dañu nar a ñëw vote yi dinañ ko yow yaa ko nar a récupérer donc mën nañu wax ni c'est c'est plutôt une solution qu'un problème que vous avez. Euh, mais si c'est une solution pour lui lui. pour le président mais tant mieux alhamdulilah. parce que moo tax ñu bëri ne est-ce que nekkuloo sax nekkul peut-être njiitum réew moom moo ko bëggee noonu. ah déedéet. du yow fi nga commencé nee nga mën gisoo samay mobilisation gisuñu campagne gisuñu. Mhm, c'est un constat mais la mais la vérité la vérité aujourd'hui li dëgg mooy que muy liste wu Benno Bokk Yaakaar que muy liste opposition bi am na ñu fa nekk di battre campagne pour ñun loolu mooy dëgg man mosoo ma dégg ma wax lu mu wóorul parce que ay naxaate la ñuy def parce que ñii dañ dem ba ci biir xam ne que liñ leen di wax amul nan ngay ame nan ngay nekkee candidat ci lu toll ni ville de Dakar nga nekk ba mu des une semaine nga naan noo waa léegi sama programme a ngi nii après que nit ñi wax seen i waxi programme keneen ki dem copier yëfu jàmbur taxaw naan ay en fait ne lise que des titres comme yàlla ni ngay def uni comme ni ngay lire uni xam nga ki ki recopier une bi ak ki ma ak ak ki bind article bi bokkul donc affaire bi dafa laaj sérieux dafa laaj taxawaay parce que ay nit ñoo toog xaar di xaar ci neuf point yuñ dénk mairie bi ñu taxawu dakaar ni mu mel nii mënatu ko continuer mel Dakar mënatul nekk Dakar bi nga xam ni fu fu waay neex taxaw jaay fu waay neex taxaw euh, gaari oto fu waay neex euh, ñëw euh, teg ay brouettam ak ay suufam ba trottoir mënatul nekk loolu fu waay neex taxaw yalwaan dakaar boobu mënatul nekk c'est-à-dire soit dañuy décider ñu régler problème bi soit ñu bàyyi nag ñu tuxu xam ne que fii moom suñu dëkk bi mënatul nekk mais lii am ni mënatul continuer ci mairie bi am na ci responsabilité et loolu boo ko bëggee def il faut nga wéeri ci nguur. ñan ñoo composé sa sa sa sa coalition bi. bon ñëpp ah bon doon na baax trop nga liir suñu suñu suñu liste. non téléspectateur dañu soxla xam. cest waa man mën naa ko lii sax mais damay bëgg au moins. ñu par exemple boo ma laajee. ci cest ci wàllum secteur yeeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy non non c'est ñun investiture yi ñu def ci élection législative yi ci élection présidentielle yi lañ identifier ay forces réelles yu ancré wu ci collectivité yi parce que dañu bëggoon combler benn gap de 37 pour cent ak 49 pour cent. pour que président mën a jàll premier tour ci processus boobu lañ identifier force yu bëri y a des gens sa ban commune nga dëkk. golf moom boo demee golf di nga fa gis koo xam ne du directeur du ministre amul benn relation ak ku nekk ci nguur et pourtant ku am soxla ci koñ bi moom ngay dem seeti du dëgg am na non ñu mel noonu lañ dajale jël force yu mel noonu ñu dajale leen. ni leen mu nekk leen maire parce que comme que yéen yéen a ngi taxawuñu nit ci seen doole bopp seen xelu bopp seen kàttanu bopp rafet nañ njort ni que bu ngeen téye maire bi li ñëpp bokk di ngeen ko téye ci anam bu rafet et di ngeen ko yóbbu ci euh, population tu lu taxoon ma poser la question boobu. Mm-hmm. c'est plutôt pour xool euh, le poids de ce qui compose euh, bien sûr horizon Sénégal horizon 2035. boo ma laajee boo dégg nañ si ay da Niong dégg nañ si ay Doudou Diagne Diécko c'est-à-dire ñooñu ngay piocher ba ci bay piocher ci ci ci côté arène bi. est-ce que duñ ne euh, peut-être danga nekk ci vraiment benn benn benn manque de de de bras ñoo xamante ni war nañ mën a ñëw. Mm. Euh, ba ci sax dégg nañ ay ñoo xam dañ leen doon bëgg a débaucher au niveau de de de Benno pour ñu ñëw fekk si la. Euh, peut-être pour trouver une solution. en même temps xam man dégg naa wax man suñu liste investi yi amul kenn koo xam ni mën nga wax tête de bu jiite boo mën a wax ni que kii ci ñi fii la bokk amul nee naa la li ma la wax. ay mouvement ay parti politique ay association de jeunes ay association de femmes yi dajaloo pour bokk ci élection locale yi mhm. ñoo dajaloo dem di participer ci élection yi léegi boo ma laajee ñan ñoo ci bokk du jànjee ko amul droit participer ci gestion mairie Dakar Aïda Ndiong amul droit participer ci gestion maire Dakar Nicole Gakou numéro 2 UCS amul droit participer ci gestion mairie ville de Dakar le coordonnateur de Jëf Jël amul droit participer ci gestion ville de Dakar c'est que nit ñi dañuy wax ci xamuñu c'est-à-dire ku liir suñu investi du wax lii xoolal ngor ki investir ak kii ngor mënul am ki investir ak ki Benno Bokk Yaakaar investir xoolal lool nous on a investi en Toussamba ancien directeur de laser ingénieur par rapport ak ki Benno Bokk Yaakaar investir nga xool mais loolu waa Almadi ñi dëkk Almadi xam nga ñi dëkk Almadi ci commune bi ñooñu soxlawuñu ko leen indil secours soxlawuñu ko leen indil comprimé wala def loolu mais ñooñu dañu soxla ku defar seen gox. donc dañuy xool capacité ku mën a gérer. 3 milliards 800 ñooñu yaakaar nañ ne am na am nañ vraiment poids pour apporter euh, euh, li nga xam ni moom moo di coalition bi. parce que madame benn benn benn électorat bu dëgër boo xam ne gën a mën a. parce que madame vous da ngay da ngay jaawale moo tax man la il faut nga comprendre type d' élection bi on parle d' locale commune bi boo quand quand vous parlez de commune vous parlez quartier ngay wax koñ bi gox bi ñu dëkk ci gox bi mais. da gis ku bokk parti bi bokk parti bi bokk parti bi ñoo xam ni au sommet duñu laalante mais à la base def nañ seen coalition dem ànd. Hmm. am déet. d'accord parce que enjeu yi enjeu local la. ñenn ñi pour surfer ci kaw nit ñi ñoo koy jox ay enjeu de régime ay enjeu de mal de de de non enjeu local la. moonte ku ku féete si yéen moom moo ni enjeu yi dépassé na local. dem na ba mën a déterminer sax loolu ki ko wax moom la engagé. ah dégg nañ Mahmoud Saleh euh, déclaration. bu mu def à ce propos man waxuma ko pourtant foofu laa nekk. léegi pourquoi nga bëgg a jàpp ni que moom li mu wax mooy dëgg man li mu wax li wax du dëgg ci pourtant bokk même pratiquement ñoo taqaloo bureau moom loolu la wax man ma wax la lii. doo confirmer daal ay propos am. non du question du ma confirmer jàpp ma ni que bokkoo leen position. jàpp ma ni que loolu mooy position bi méngoo ak li am. Mm-hmm. li ma jàpp mooy est que élection locale problème mu localité la. d'accord et et vous vous euh, c'est-à-dire yaa ngi xalaat euh, euh, les lendemains. bés bu élection amee ñëpp xam nañ ni mbébét bi mooy nga gagné mais c'est une compétition également te dégg nañ lu njiitu réew mi waxoon euh, ci ñi nga xamante ni peut-être euh, du ñu gagné euh, sanction yi nga xamante ni mën na tegu seen ndodd est-ce que yaa ngi koy xalaat que ni au lendemain de ces élections ay sanctions mën na